بسم الله الرحمن الرحيم kenn ku lim doo jum waaye da nga dul matal waaye mbooleem gox yi mbooleem quartier yi nekk ci diwaanu Kaolack fu fa daara mën a nekk rek te yëngutu ci téere bi teñ bokk ci moom moom ñu ngi lay woo ci bis boobu muy tolloog àjjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk. di ci woo nag képp koo xam ne yaa ngi jiite daayira te dëkk Kaolack ak foo mën a dëkk rek ñoo ngi sak sak sak teewaay ak sa mbooloo ndax bu ñu yeggee ci bis ba lépp loo xam ne nii di jëm ci bis bi la ndaw ñee ko war a taxaw moo tax ñu ngi woo képp ku jiite daayira yaag sam ndaw ñëw teew ci suñu Modou Mamoune bëgg ci bis bi mu amee ko ci mooy taxawu gan yeeg lépp lu ñu fa def daal te nga xam ne ndaw koy daal ñu ko di ñaan yàlla jàmm da ci ngërëm suñu borom ci barkab Sëriñ Touba rawatin nag diwaan bi xam ne ñoo féete Touba Gaawaan Touba ñoo ngi leen ci waaye nag bépp daayira bu nekk eh, Kaolack rek ñoo ngi tey woo sàkku seen teewaay lu mel ni alxames bi itam am nañ yéene dundale ko xasida ak salal ala nabi boobu baset baa ba guddi ko sori bu ñu xëy soog ubbi jumaa ji kon ñu ngi sàkku képp ku ko dégg rek suñu Moodu Maamun ko moo ngi li ciy woo di woo dëkkandoo yi yëpp mbooleem quartier yi nekk ci koñ bi bàyyiwuñ kenn dëkkandoo yi yëpp ñu ngi woo mag ndaw góor ak jigéen ñoom ñëpp ñu woote ci turam di leen yëgal ñu xam ne ñoom ñoom la ñuy fekk si wala day wax ne ku am gan ñi ñeela maa nga ñeete kon ñoom ñooy teeru gan ñi dalal leen noo ngi leen jiital ci woote bi di leen ñaan ñu yaatal kër yi te defar dëkkuwaay ndax gan mi bi Moodu Maamun sañcee daara ji kenn ku dëkk ci gaawaan xolam dafa sedd guy ba nga xamee yàlla dogal na samp na jumaa ji itam képp ku dëkk ci gaawaan di mag di ndaw sa sedd na guy bis boobu nag muy woote le 22 décembre wane leen seen mbégte ni ngeen bëgtee woon bi mu fiy sanc ak bi ñu xamee def nañu jumaa ji na ngeen ko def wane seen mbégte lool góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw képp ko dëgg gaawaan mbir mi sunu mbir la noo ko moom noo ko moom kon bi na ci am yitte bu baax lépp lu waay jàpp na ko bàyyi boo dee tukki na nga ko fomm ba bis bi jàll autorités yi nekk ci dëkk bi li dale ci préfet li dale ci maire préfet gouverneur ñoo ngi leen yëgal bis bi ndax bëgg nañu ngeen def ci seen loxo bu baax ndax yéen yore dëkk bi lépp loo xam ne sécurité boo xam ne euh, bëgg nañ fi sécurité bu baax a baax ndax ay kilifa dañ fiy ñëw kilifa nag bu dee ñëw yeen ñi xam ne yéen yor dëkk euh, dëkk bi nekkal fi chef de l'état bi war ngeen cee def lu baax def jàpp seen loxo ak ni ñu ko war a jàppee euh, maa ngi woo sama bokki délégué de quartier yi xam ni ñoo nekk Kaolack muy 46 délégué de quartier yi xam ne ñoo nekk biir Kaolack maa ngi leen di woo yéen ñëpp. di woote ci turu waajuru xale yi nga xamante ni ñoo nekk fi ci daaree sëñ Mamoun Ka ci bés bii nga xam ne moom lañ jublu di bés bi nga xam ne moom lañ jublu di ubbite juma fii ci daaree sëñ Modou Mamoun Ka. ci Daaru Salaam Coofak ci turu sëñ Moustapha Sàmm mi nga xam ne moo jiite kuréelu waajuru xale yi nekk fii ci daara ji ñuy wax ci turam di ci woo mbokk waajur xale yëpp fu waaye mën a nekk ci senegal ñu ngi lay woo ci bés boobu ju jublu nekk le 22 décembre 2023 bii ñu nekk ci turu sëñ Modou Mamoun Ka ñëpp a ngi maase di am cant ak mbégte ci bés boobu ñu jublu yàlla nañ ci àgg ak jàmm benn bi ñu toppit ñu ngi woote ci comme ni ko sëñ Xaadim Ndiaye waxee léegi mbokk commerçant yi nga xam ne dañu am wëllëre ak sëñ Mamoun ak mbokki opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoom ñëpp ñu am wëllëre di ay xarit ci sëñ Mamoun buñ ko waxee mën nañ cee tudd ku mel ne sëriñ Abdoulaye ja ak xaritam ba sëriñ Moustapha Ndiaye ca Dakar ak xaritam ba du Ñaan fii ci kaw Kaolack ñoom ñëpp di ay wëllëre sëñ Mamoun dañuy bañ di lim di muy gudd ku mel ne sëñ fàllu ba fii ci kaw nekk ndaw ndaw Serigne euh, aboo ci Daaru Salaam ñu ngi ciy woo mbooleem commerçant yëpp di ci woo Serigne fàllu Diakhaté mi nga xam ne mooy représentant moom it Serigne Abo Mbacke fii ci Daaru Salaam di ci woo ku mel ne Serigne Mour Cheikh Babou fii ci Kaolack suñ comme ni ko sëñ bi waxee suñu limee duñ matal waaye di di di beral tamit woote ku mel ne sëñ Kara Moxo Taal ak xaritam bu baax bi mu àndal sëñ Moussa Mbacke ci Touba ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo di wax it euh, mbooleem kabbalaas yeeg réseau yi ak sëñ mu kabaroom ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo ci bës bi euh, junj doy na borom xel bés la boo xam ne bës baa ngi noonu le 22 décembre 2023 bii ñu ne euh, comme ni ko délégué waxee léegi ñu ngi ci woo Sénégal yëpp di ci woo autorités yi di ci woo waa réew mi waa biir réew mi ak waa ak ak waa Kaolack xëy na moom ñoo guddal waaye daal ñu ngi sant ak gërëm. di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote di ko wooteel suñu borom di ko wooteel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko wooteel Seydou Seyxul Xadim di ko wooteel maam Cheikh Anta di ko wooteel Cheikh Mouhamadul Mamoun di ko wooteel Cheikh suñ Abo Mbacke woote boobu ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla nangu ñu ñaan yàlla it euh, képp ku fi ñëw yàlla sunu borom faj sa aajo te luñ fi jaamu yàlla nangul ñu ko. mu nekk jëf joo xam ne jëf ji yàlla gërëm la jëf ji yàlla nangu lay doon yàlla ñu ko yàlla defal di sant nag kàddu yi nga xam ne fi jib yëpp man lépp lu ñu lu ñu war a wax rek ci wàllu woote bi mbokk yi teew wax nañ ko kon ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm ci seeni kàddu yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko jàmm te buñ ko fekkee lépp lu ci luñ ci séentu yàlla defoon ci lu kawe sunu njort te yàlla gërëm lépp jaay xaadiba Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu